la réew mi c'est un parti bu ma def seize ans euh, gis ko ci ay jours yu metti ci ay xeex politique euh, ñu am ci sax formation wax dëgg yàlla grand bi bu dee mi ngi ñuy seetaan maa koy nuyu man def na ay deux ans wala lu teg tuuti gisuma ko quoi gisante wuñ mais tey position bi ma toogee mooy jàngat li ma nekk di gis muy am ci réew mi réew mi par rapport ak sénégalais yi dafa am lu ñu wax keroog bi Idrissa njëkkee génn wax ci conseil des ministres décentralisé bi yaakaar naa bu cees mani ni li ma dégg mu ni ko une mention honorable sur les langues de la postérité ma ni na ko mm-hmm. tàggu na ko ci li dégg man parce que moo la yoo xam ni bi muy commencé déclenché yenn yi ak Wade en 2010 dafay commencé di ko ko junj pour affaire troisième mandat mu junj loolu fële euh, fi nga xamante ni mooy Thiès ma wax tàgg na ko tàggu na ko mu ñëw dakaar ñu def seen séminaire bi ma seetaan vraiment vidéo bi yëpp euh, xool fond bi xool forme bi vidéo bi bi muy jeex Idrissa manifestation bi muy jeex bu ma juumul def ni du soppi d'hier au réew mi d'aujourd'hui les ambitions restent intactes mhm. pour man Idrissa bi ma gis ak Macky Sall problème laa fi gis te un problème ça se déplace pas ça se réseau Idrissa veut être candidat te li ma gis dafay dem pour nekk candidat mhm. léegi bëgg nekk am candidat boobu ñaari mbir moo ci am te ñaar yëpp bu ci nekk pour man clash lay jur ak Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar benn bi mooy bu fekkee Macky dafa bëgg forcer pour def troisième mandat pour man Idriss Seck du d'accord ci loolu parce que il veut être candidat bu fekkee Macky Sall du du dem te la famille Benno Bokk Yaakaar war a am candidat man gisuma ci sama calcul politique moment bi nu Benno Bokk Yaakaar di jële Idriss Seck def ko kandidaawam hmm. te loolu aussi bu amul Idriss Seck yaakaar naa dina génn doon candidat boobu hmm. donc pour man quoi qu'il advienne li ma gis nii muy dox ci sama jàngat mooy clash day am dañ nekk di ko déplacé hmm. mais fa la ñu jëm léegi nag yow jàngat bi mooy bu fekkee da nga bëgg nekk candidat discours bi ma dégg Idrissa tenir man dafa am ci yoo xamante ni tey bu moo ko jege woon wala ma nekk spin docteur lu may xalaat mooy dans le discours sa dafa am lu mu tàmm di wax mu ni il faut il faut digérer yenn yi bu ñëwee dal sa kaw dilater la poitrine comme il a l'habitude de dire pour man problème am ak Ablaye Wade mbir la boo xam ne mi ngi xew ay 2003 2004 xëy na continuer na après ga ba ba ba mandat bi di jeex mais le primo votant bi nga xamante ni tey 2024 moom day am 18 ans bi Wade di wàcc kooku 6 ans la am kooku il ne retient rien de presque histoire u Idriss Seck bi ak Abdoulaye Wade te pour man Abdoulaye Wade ci bëtu sénégalais yi moment bi il est vu comme un patriarche benn patriarche boo xam nit ñi dañ ko jàppee seen maam ci père fondateur yi nga xam ni li mu def ci lu baax ñi ngi ko koy sante li mu defoon ci lu bon fàtte nañ ko baal nañ ko ko mm-hmm. sama perception bi may gis sénégalais yi ni ñuy xoole Abdoulaye Wade nii bët boobu bëtu cofeel boobu lañ koy xoole rappeler say point de désaccord ak moom pour man ça dessert mm plus que ça mu lay servir parce que bu fekkee même da nga bëgg a nekk candidat xanaa li buuba wax la grande famille socialiste mais xanaa yow tamit famille libérale ngay xalaat mais la famille libérale ñu bëgg ko ñu bañ ko dafa am papa tamit au Sénégal papa boobu tey pour man tamit ab Ablaye Wade la fii yàlla nga koy may fan wu gudd mu nekk fi loolu benn la bu ma bu ma jàngat par rapport ak ak ak discours bi euh, point de désaccord yi moom ak Wade deuxième bi ma jàngatal mooy euh, grand bi am na benn genre benn genre pànk bu nekk ci moom pour man problème mu forme sax moo am parce que bu fekkee sa njaboot danga leen di teg am yooyu corriger ci ñoom moment boobu waruloon nekk lu public direct yi waruloon daw waroon na mën a am une rencontre mhm. fermée mhm. après mu am déclaration ak presse bi mhm. xaw ma ndax nga fi may waxee mais quand tu par exemple sa njaboot ngay wax ak ñoom nga ni y a des gens qui m'ont parlé de manière violente violemment Euh, def ko ak ak ak yoo xam ni c'est incompréhensible c'est utiliser mots yu fort ni ça me montre le statut de votre éducation ñenn ñi loolu mooy ci yéen ci olof daal bu ma koy teggi am na ñu utiliser mots yu diis yu ma bi te loolu daf may wan seen seen yaradiku à limite ñenn ñi mm-hmm. loolu pour man parti yooyu maanaam ça devait lu waroon tëju la. Mhm. loolu warul nekk devant la presse. Mhm. parce que pour man ñii ma xam de muy les militants réew mi ce sont des gens qui de 2004 ñu ci bari ak on l'ont accompagné mais vraiment gëm ko quoi donc pour man taxaw même boo leen di corriger muy nekkee noonu en public pour man loolu tamit c'est pas stratégie. Mhm. léegi nag il y a une recomposition de la vie politique au Sénégal. xam nga Idrissa bi muy am 20 pour cent il benn super coalition. Mm. c'est ça la plus grande d'ailleurs. E, extra giga coalition nga am 20 pour cent. je parle pas de la coalition maintenant. Mm-hmm. mais je te dis à l'interne. Mm-hmm. à l'interne rek ci biir. Mm-hmm. il y a deux candidats dans le Rewmi déclaré moment bi. Déthié Fall a déclaré dimanche non. waaw Abdourahmane a déclaré avant. waa léegi kon ñun waxuñu la giga coalition boobu amoon. mais dans le parti rek bi amoon vingt pour cent bi parti bi kese y' a deux quoi y' a deux candidats yu ci génne tey yoo xam ni aussi li ma la wax sànq ñoom ak seen génération mm-hmm. am na déggante ci discours buy am mm-hmm. donc loolu ci frange réew mi la génne peut-être franc vécu bu ma am ci parti bi am na ko kii amoon na ko mais aussi benn bagara bu dem benn keneen bu dem am ah, peut-être am na lu muy wàññi mm-hmm. donc yooyu yëpp nan lañ koy évaluer nan lañ koy quantifier loolu moo mat a jàngat mais pas pour man yenn débat yi hmm. léegi nag entre moom ak la Benno Bokk Yaakaar mais mburoog soow bi mi ngi am problème déjà fii ma toog nii ba Diattara mi ngi tontu Maodo Malick mbay parce que Maodo Malick mbay dafa bind Idrissa dafa bind ni ko Idrissa noo défaite bi ñoo ko àndandoo bokk ñoo ñàkkandoo ci nga bokk Yankhoba Diattara bind Maodo Malick May ni ko moo cher ma Maodo moom it tontu ko waa kon xam nga. sa euh, veux dire commence à partir. ci ci waa ci yenn sens yi yëpp. loolu mooy wane ni yaa problème fi ñu jëm te man li ma gëm ak ni ma jàngate nit ki ak posture mën naa juum de mais dama gëm ni Idrissa sera candidat te gëmuma moment j'ai une petite question est-ce que tu penses que Diatara il continue il continue il il sera il sera loyal il est toujours avec Idi <laughs> euh, Malal pour te dire vrai c'est une grande équation moment bi pour man wax dëgg yàlla damay toog xam nga aussi ñun ñëpp ay dañuy analyser politique damay toog di ko di ko di ko ko jàngat waa mais ah, ma ah. xam nga mën na ma ko laaj ci ku ko xam nga ñii am nañu luñ tënku ci euh, discipline de parti bu baax discipline de parti mais benn affaire moom laay xam mooy li malal posé comme question mhm. vraiment ah. questionnement la bu ñu war a mën a euh, dem ba ci fond bi jàngat ko parce que tey bu ñuy xool Mouhamed mi position mhm. ak position bi yàggul du benn tey mhm. mais ba tamit posé na acte léegi comme Maodo bind na ci suba gi. Mhm. wala démb xaw ma. mu tontu ko ci ngoon gi. peut-être tamit loolu signal la pour wane ni. ba tey maa ngi def parfois ci grand bi nu ma nangu ngeen ñëw ci kaw. mais lan mooy constante bi. Mhm. mooy ils vont vers divorce bi. Mhm. mais nag divorce bi après lan ngay fekk ci biti aussi. nañu waxante dëgg. yaa a une recomposition. recomposition boobu dama ni. ci biir famille ah, réew mi bi rek. am na ay réalités yoo xam ni tey Déthié mon ami que je salue est candidat mhm. Abdourahmane est candidat mhm. léegi nag yooyu mooy yi mat a jàngal dem ci jàngat dem ci en profondeur il faut qu'on aille très vite parce que loi bi tamit foog ñu wax ci ah